naalal ko maamam ju baax ja mu yeggale ko ak sago ta nu ànd koog moom ñun dongo yëpp it di ñaanal cheikh Mouhamadul Moustapha xalifatu cheikh Mouhamadul Amin sunu borom dolli ko wér feq aw fanam ba naal ak yéene yi mu am ci kër cheikh Mouhamadul Amin mu matal ko te ànd koog njabootu cheikh Mouhamadul Amin baara Mbàkke gépp góor ak jigéen mag ak ndaw. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir moom mi nga xam ne moom la sunu borom teg ci boppu njabootu Serigne Cheikh Thioro sunu borom feq aw fanam ci wéral ay cëram ba mboolem naal ak mébét yu sëriñ Cheikh Thioro mébétoon wala mu yéene woon ko ci yeggul mu yeggaleel ko ko ba yeggale naal yi boppam ak mébéti boppam and ko ak njabootu Serigne Cheikh coro gépp góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla man na ko yàlla na ko ko yàlla defal ci barkeb Cheikh Khadim barkeb Cheikh Amin ah di sant bu baax a baax rek ci turu Cheikh Mahamadul Moustapha xalifatu Cheikh Mahamadul Amin ak njabootu Cheikh Mahamadul Amin Baara Mbàkke gépp ca woote ba dañu waxoon ne cheikh Mouhamadou Moustapha mi ngi woo njabootuk Serigne Bara gépp ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy màggal seen bisu jur bi fa tabarakallah na ko sëriñ Moustapha digle woon woote woon ko njabootuk cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëpp teew nañ fi góor ak jigéen mag ak ndaw ku ko man rek teew nga fi kon sëriñ bi nee na mi ngi sant njabootuk Serigne Bara googu bu baax a baax a baax nam ko sàkkoo wi nit ne mu ngi woo taalibe yépp fu ñu mën a nekk ñu ànd ak moom bisu way juróom wii taalibe yi ñoom it na leen ko digale woon ñoom ñëpp defe nañ ko noonu teew nañ macha allah yal na yàlla fay leen yiw ñoom ñëpp it sëriñ Moustapha nam ko digle woon itam ci njàngum alxuraan ak njàngum xaside mi yaakaar na ne na mu ko digle woon sàkk woon ko ko noonu itam defale nañ ko ko noonu kon moom it nee na mi sant di gërëm jàngkat yi alxuraan yi waa yi ak borom kuréel yi ñoom ñëpp nag ndax wolof dafay wax ne nit ku koy fàttaliku danga koy fàttaliku ca la mu nekkoon gënoon koo bëgg may wax ne ñaare nit yi àdduna yi sax boo jëloon am mbër mu ñuy fàttaliku dañuy boole ñaari bër yuy bëre ngir fàttaliku ko ko kon sëriñ Cheikh Thioro ku koy fàttaliku la nga ca war njëkk jiital gën koo farataal mooy njàngum alxuraan bi ak njàngum xasida mi waaye itam wut ay ñam leel ko ñi nga xam ne dañ koo aajowoo camil nee ne fa tabarakallahu loolu lépp mat na kon ñi nga xam ne dañoo taxawee loolu ci turu Serigne Moustapha ak njabootu Serigne Bara gépp maa ngi leen di sant di leen ci gërëm bu baax a baax di sant bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadul Basir ak njabootu sëriñ Cheikh Thioro ci nii nga xam ne waxtu ne bisu sëriñ seex Thioro bu ñëwee noonu lañ koy amale ndax la ci ëpp solo. muy waxtaane jikkoy sëriñ Cheikh Thioro ba ñuy jubbee bis bi ba nëgëni waxtu ne ci rajo yi ak télé télévision yi ñu ngi koy waxtaane ngir ndaw yi mën a roy ci jikkoy sëriñ Cheikh Thioro yooyu ndax ñu mën a defaru àdduna ak alaaxira loolu lu ama am solo la muy benn ñaareel bi la nga xam ne itam moo ëpp solo ci ku fi jóge mu di ñaan yañ koy ñaanal la ca ëpp njaboot gi def nañ ko defal ko seen wéy jur woowa ànd ko ak bokki julli yi ak bokki taalibe yi kon loolu mel na ne la leen ci waroon lépp mbakke def ngeen ko yàlla ngeen ko yàgg taxawe ba ngeen dolli ca sax nag di fàttaliku ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara ndax nit nag boo ko bëggee xamle wala nga fàttaliku ko doo yem rek ca moom ndax ba balaa njàmbaaram ak na ko yàlla mayo la ko yàlla mayoon faaw nga tudd fàttaliku ña ko yàlla booleeloon soo fàttalikoo ñooña xool lañu amoon la leen yàlla baaxe woon ci ngay doog xam na dëgg dëgg dëgg kii ka ñu àndaloon nan la meloon ca sëriñ Basiiru yaak njabootug sëriñ Cheikh Thioro gépp de at yii yëpp noonu ngeen koy defee nëgë ni daaw ñu ngi fiy waxtaane euh, euh, naka lañ koy ah Serigne Modou Amar ba ku woon itam ñi ngi ko doon waxtaanati ah, sëñ Modou Jaw Baalo kon mel na ne Serigne bi yaa ngi topp tànk yi njaboot yi nga xam ne ñuy àndoon ak Serigne Balla ren ji nga jër Serigne Ibrahima Sall. sëriñ Ibrahima Sall ni ko sëriñ maam sëriñ waxe boo doon wax ci penc mi kan mooy Ibrahima sëriñ Ibrahima Sall ña la ca mën a tontu ne duñ bari waaye dana doy sëkk rekk ci boo xoolee sëriñ maam sëriñ ci jikkoom. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen di nuyu. ginnaaw bi ma jiitalee ci nuyoo bi ak ci ziyaara bi sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général di murit di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naal yi nga xam ne naal na ko liggéey sëriñ Tuubaa mu matale ko dañ ànd ko ak moom di nuyu xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine te di ko ziyaare muy sëriñ Moustapha Mbakke moom sax Sidil Mokhtar Mbakke di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar di jéggulu bu baax a baax kàddu yi nga xam ne moom lay yëkkati ci kanamu kilifa yi ma toogal ndax dafa am lu ñu alxuraan jàngaloon te loolee saa su nekk man lay répété ci jataay bu mel ni ki nii alxuraan dañoo waxoon ni ya ayyuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil ko ka jahri baadikum li bahdin an tahbata ahmalukum wa antum la tasudun kon bu ñu sañoon dañuy bokk ci inna lazina yaquduna aswaatahum inda rasulillah ulaa'ika taala laahu xuluuhum li taqwe ngir ñu bokk ci lahum maxfiratun wa ajrun azim loolu yi nag sëriñ Tuubaa mi nga xam ne kenn xamul lu mu doon bam ñuy jàngal ci ay teggin ca naxjul xadday la aj dafa waxoon ni kun saa itam xatta yu xawila kalaam min kër faxaatibu isan xadral mara kon dafay mel ni kii loolu rek moo waral suñuy kàddu waaye du tee ñu jégalu ko di nuyu sëriñ Modou Baara Mbakke ak mboolem njabootu sëriñ Baara gi fi nekk yépp di jégalu kàddu yi nga xam ne maa ngi ko yëkkati seen kanam kàddu yi nag day jëm rek ci ñaari fan ci ñaari fan fànn gu njëkk yi mooy leeralal Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké liggéey bi nga xam ne tegoon na ko ci loxol njabootu waa kër Serigne Cheikh Thioro bi kenn ku nekk taxaw ca taxawaay bi ñu ci war a taxaw ñun ñëpp ñu ànd liggéey liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee nit nag bu la yónnee nga doxale ko boo ñëwee. war ngaa demaat ci moom ni ko liggéey bi nii ak nii wala ma yónni woon nii ak nii la demee loolu moo tax ñu yëkkati suñu kàddu ngir leeralal sëriñ bi waaye mboolem njaboot sëriñ Cheikh Thioro gi ma ci tuddee sëriñ Cheikh ma tuddee Mbacke ak mboolem sëriñ Abou ak mboolem sëriñ Modou Ba sëriñ Abdoul Aziz dana yóbbaale mboolem njaboot sëriñ Cheikh Thioro gi yëpp su ma tuddee soxna Fall Mbacke tudd soxna Ndey dana yóbbaale mboolem njaboot sëriñ Cheikh Thioro gi jigéen gi kenn ku nekk. bi nga xam ne dégg nga ndigal ci sëriñ bi dangaa jël sa taxawaay bu mat sëkk sa engagement bu mat sëkk ci bis bi xam ni bis bi sa bisu waajur la sa bisu kilifa la ni ko sëriñ bi bëggee nga defee ko noonu ba def ci lu kawe njot kon nag loolu sëriñ bi bu ñu yegsee fii dana rafet dana jekk dana jaadu ñu leerale la liggéey boobu ñu àndoon ci itam ak sëriñ Gana Messere sëriñ Gana Messere Maxtaar moo bañ nga boole woon ak moom moom it guddeeg ak bëccëgam pom mooy lu jagal bi si kër Serigne Cheikh Thioro bii saa su nekk mu ngi jot jokkoo ak ñun di waxtaan ak ñun loolu yi nag doonte da nga ko yëg ci baatin waaye nag saaxir su du tee ñu leeralal la ko bu baax a baax ba nga xam ne li taxoon nga jël ko boole ko ak ñun loolu lépp matale na ko moo tax sàng bi mu wax yi ba pare ma ne ko na sant lenn ci ñi nga xam ne yaa doxoon suñu diggante ak ñoom kon loola jërtu ma di ci jaaraat kon sëriñ bi ma dee la leeral ni sëriñ Gana day taxaw na ci taxawaay bu ma sëkk di ko sant di sàkku nga ñaanal ko Mbàkke ndax ñun lott nañ ci ñaanal ko waaye jàpp na ni yow soo ko ñaanalal rek suñu boroom dana def tawféex ca loola ndax dama koy faral di waxandi ko yow sag yàgg ak sa sax fi baax na sa wax yi tamit yàlla na la yàlla wéral te wéral say cër wéral saw làmmiñ ndax ñu pànk ñu mel ni ki yow baax na ci yoon wi kon nag sëriñ bi yàlla na ko yàlla ñuy sàkk nga dolli ko ñaan bu baax a baax yàlla kàttanatu dëgër ko ndax liggéey bi nga xam ne dénk nga ñëw ko kat nga boole ci ak moom taxaw na ci taxawaay bu ma sëkk mboolem taalibe yi kër sëriñ Cheikh Touré yi tamit buñ ci tuddee baay Cheikh Bara Tall mi nga xam ne moo jëloon kàddu léegi doon waxal président Talla Cissé dana yóbbaale mboolem taalibe yëpp kenn ku nekk ba nga déggee ba mu déggee sa ndigal lam ca war a def lépp da ko da ko cay def ba ci turandoo sëriñ Cheikh Thioro yi buñ ci jëlee sëriñ Cheikh Thioro mbuum mii rek da cee day sëkk barki dem rek sëriñ baa ngi koy wax ci taxawaayam bu rafet ak pas-pasam ak yéeneem ju rafet joo xam ne am na ko ci kër sëriñ Cheikh Thioro rawatina bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi jàppoon ni mooy bisu màggal gi nga xam ne ci la ñuy jàng alxuraanul karim ci la ñuy jàng xasida tuddee ko jataayu murid ñoom turandoo sëriñ Cheikh Thioro yooyu ñu di ko doon taxawu moom Cheikh Mbuum mi bokk ci muy sëriñ Cheikh Thioro Mbacke bu sëriñ Amar Fall Mbacke ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke bu sëriñ Bassirou Khoudia Dieng ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke bu sëriñ Abdoul Khadim ak sëriñ Cheikh Thioro Mbacke bu sëriñ Moustapha Abdoul Aziz ak mbooleem waa kër sëriñ Baare yi ci waa kër sëriñ Cheikh yi ak mbooleem taalibe yi waaye bu ñu jëlee kàddu gi rek teg ko ci loxaam dafay mel ni ki dana matale ci mbooleem ñëpp ak mbooleem sëriñ sëriñ Cheikh Thioro yi nga xam ne ñoom itam bi ñu déggee sa ndigal dañ caa taxaw taxawaay bu mat sëkk kon nag loolu bu ñu agsee ba ci bis bii lu jar ñu ciy guddal waaye na daañ la ko leeralal ba nga xam ni kenn ku nekk def nga ko muy sa yittey bopp di sàkku nga ñaanal ñu ñaanal njabootu sëriñ sax Thioro bi yëpp ñaanal góor ñaanal jigéen ñi gan ñaanal mag ñi naa ñaanal ndaw ñi ndax kenn ku nekk taxaw na ci taxawaay bu mat sëkk sëriñ Abdoul Aziz Ahmed mi nga xam ne moo mujj wax itam ak sëriñ Moutada Abdoulaye Diim bañu ba ñu mën a ko dara ci liggéey bii ñoom ñoo ñu téye leen liggéey bii ba ñu demee ba mën ci dara yi tamit téewul taxul ñu dellu ginnaaw dañoo topp ci suñu di ñu xalaatal di ñu jëfal di ñu loo ñuy def te bu leen neexoon ni ñu ñun kat seen seen i kilifa lañ léegi man ngeen jàngal nañ leen ba ngeen xam yoon wi demal leen seen bopp waaye tey lañ gën a takku tey lañ gën a laxasaayu man ne ba ma xamee ñuy xamee ba léegi ñu def màggal Serigne Cheikh Thioro gii Serigne Abdoul Aziz Amit mii ak Serigne Abdoul Khadi mii fu ma geesoo ci njaboot Serigne Cheikh mooy ci appel mooy ci plateau ak ci lépp lu ñu def ñoom ñi da leen ci gis kon nag loolu des na leen sant ci njabu sëriñ Cheikh Thioro dañ leen sant yi tamit leeral ko sëñ bi donte xam na ko yi tamit waaye ñu sant leen leeral ko ci turu njabu sëriñ Cheikh Thioro gi yëpp kon loolu mooy fànn gu njëkk gi ñaareelu fànn gi mooy sant sëriñ Basiru Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Cheikh Thioro Mbàkke di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér kàddu gi nga xam ne moom lay yëkkati di ko jëmee ci moom mu ngi dukkee ci mboolem njabu sëriñ Cheikh Thioro gi yëpp

jël nañ ci ay jàngat yu bees tàq te nii rek la ko sëñ bi bëggee woon loolu rek la ci la ko sëñ bi bëggee woon ñoom tamit ñu ngi leen sant bu baax a baax ci turu njabootu sëriñ Cheikh Thioro bi yëpp sëriñ Basirou maa ngi lay sant bu baax a baax ci turu njabootu sëriñ Cheikh Thioro bi yëpp li tax ñu lay sant nag mooy kilifa yu bari wax nañ ko ci wax nañ ko fii waaye nag lii ñuy seede dafa fekk ni ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa ñoo ko njëkk a seede ci yow ndax bu yàggu rek am na kilifa gu baax kilifa gu tedd goo xam ne ci njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke gii la bokk daf maa wax ni ma sëriñ Basiru mii kenn mësu koo dégg ci loo xam ne waruñu ko coo dégg loo ko dégg lu ne lu war a nekk la sëriñ Basiru kenn mësu koo gis ci loo xam ne mësu ko caa gis loo ko loo ko gis lu ne ci loo ko war a gis te loolu kilifa moom ma ko seddal daal ni ma lépp lu ngeen di xool ci sëriñ Cheikh Thioro na ngi ko xool ci moom bu ko xoolee ci moom du ko gis ci moom lépp lu ngeen ni bu ñu gisee sëriñ Cheikh Thioro defal ko ko ne leen wóor ni seen xalifa baay bi matane ko nañu ko defal loola kon nag dafay mel ni ki cant googu ak ngërëm loolu dafay mel ni ki say kilifa ñoo ko njëkk a seede ci yow kon nag ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci sab taxawaay ci sab taxawaay ci mbooleem njaboot gi ak ci mbooleem taalibe yi yow nag sab taxawaay wéesuwul dara lu du diine wéesuwul dara lu du lislaam nga doon ab taalibe te jaarale ko ci kër Cheikh Mamadou Lamine Baara ba ñëpp a xam la ci mu nekk ci kanam mukk kenn lay tànn ci njabul Serigne Cheikh Thioro ni ko demal jiite kon nag loolu dafay mel ni ki wax ji matte na ko waaye jëf ji tamit matale na ko loolu itam ku bëggul sa kilifa bëggoo bëggoo sa jur doo def li ki noonu ndax ku mu gis képp koo xam ne gis na ko rek ci njabootu sëriñ Cheikh Thioro day dafa jàpp ni kookee jàppee ko rak waaye da koy jàppee ni doomu sëriñam la da koy jàppee ni moom mi kay ma war a nekk ab taalibeem kon loolu njaboot gaa ngi la ci sant di ko seddeel mboolem sa kilifa yi fi teew yëpp di la sant di ñaan yàlla yal na la yàlla sàmm yal na aar bu baax a baax damay bañ a guddal ndax dafa mel ni ki kàddu yi dafay xaw a dafay xaw a bari waaye nag lii rek laa amoon ci loo xam ne dinaa ko tënk jëmale ko sëriñ Basiru leneen li ci des ñu di ko leen ko dénk ci turu njaboot sëriñ Cheikh Thioro gi yëpp ci yéen ñi nga xam ne yéen laa sañ a waxal te ndénkaane loolu dafay mel ni ki alxuraan dénkoon nañu ko waaye dafay fekk ni fan yii yëpp sëriñ Muntaxa Mbàkke mi ñu koy fettali ñu koy fàttali fan yii yëpp muy jàng alxuraanu karim tey tudd yàlla kon nag ñoo ngi soññu mbokk taalib bi yëpp yéen ñi nga xam ne yéen lañ sañ a waxal nañu góorgóorlu ci di tudd yàlla ndax alxuraan dafa waxoon ni tudd yàlla moo gën a màgg lépp loo xam ne ab jullit ñu ngi koy def kon nag loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax sëriñ Tuubaa waxoon ni saxoo tudd yàlla moo ci lépp moo gën a rëy ci lépp loo xam ne ab taale bi dana ko sàkk te di ko baril kon nag loolu waxi Serigne Touba la Serigne Touba ne loolu nag wax naa ko te waxuma ko ndànk dama ko wax ci kaw te ci faale koo xam ne ku koy weddi la daal di wax ni man Serigne Touba wax naa ni képp koo xam ne bàyyi nga tudd yàlla na la wóor ne ab dof nga te yemoo ci dof rek da ba pare di tooñ te dof nag met dof doy na sëkk waaye dof buy tooñ nag moo gën a metti te Sëriñ Tuubaa ne nag képp koo xam ne bàyyi nga tudd yàlla di tudd leneen lu dul yàlla ab dof nga boo ne buy tooñ kon nag nañu góorgóorlu bu baax baax ci tudd yàlla te muy sell ci suñu biir biiri xol tey jàng alxuraanul karim bu ñu bëggee jege yàlla nañu jàng alxuraan ndax Sëriñ Tuubaa moo ko wax Sëriñ Tuubaa ne ne ku bëgg a yàlla na ngay jàng alxuraanul karim dellu wax ni képp koo xam ne bëgg nga ngërëmal yàlla te loolu rek la ñuy sàkku jege yàlla ak ngërëmal yàlla képp koo xam ne bëgg nga ngërëmal yàlla sëriñ Tuubaa ne na ngay faral di setantal di jàng alxuraanul karim tey setantal maxnaaya di setantal la nga xam ne moom la ci alxuraan jublu ak maxnaaya lépp nga di ko taxantal su fekkee bëgg ngaa bu fekkee bëgg nga am ngërëmal yàlla kon nag loolu itamit ñi ngi leen koy dénk di ko dénk ñi nga xam ne yéen lañ sañ waxal sëriñ Tuubaa waxoon nii na ngeen saxoo bu baax a baax a baax ci di jàng alxuraan ci bis bu nekk donte ñetti isib la ci bis bu nekk itamit ko saxal bu baax a baax kon nag loolu ndigal loolu yi nga xam ne ajjuma ji nga xam ne génn nañ bokk na ci li nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke doon na ko gën a feddaliwaat kon nag loolu rek lañ ciy defaale occasion di ko fàttaliwaat mbokki jullit yëpp di ko fàttaliwaat mbokki taalib bi yëpp ñu góorgóorlu bu baax a baax itam sax ci ak njub sëriñ Basiiru Mbàkke mii bari na loo xam ne baatu njub da koy tudd lu baree bari te mu ko lool te sëriñ Mourou Moustapha dafa waxoon ni man sëriñ mun Moustapha day gisuma gisuma lu ma doy lu dul njub njub moo ma doy kon nag baatu jub lu am solo la na sax ci jub nag lu gàtt la waaye nag saraaxa na lu baree bari kon nag nañu sax ci njub te sëriñ Tuubaa dafa waxoon ni waat naa ci yàlla nii fii ci àdduna ak ci àllaaxira gisuma fi lenn loo xam ne mën naa jëriñ jëmm ji ci ba wàccee ci biir bàmmeelum lu dul ak njub kon nag nañu góorgóorloo baax a baax ci njub te mbokk yi ñu moytu ni ko bu baax a baax àdduna bii ak caaxaan yi ñu nekk ak fom yi rawatina ci dëkk bu tedd bi rawatina ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom lañ nekk muy Touba gi képp koo xam ne dem nga booy fade bu a ñàkk woon kon nag képp koo xam ne nekk nga fi leneen wala nga bëgg fee nekk leneen lu dul loolu ba feneen foo xam ne jàpp nga ni fii kat yàlla du la fa gis te yàlla fu yàlla fu dul gisee doomu aadama amul kon nag nañu faytu nañu moytandiku fo mi ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ni foo amul njëriñ àdduna amul njëriñ àllaaxira nañu góorgóorlu bu baax a baax te xam ne àdduna mii kat képp koo ko jàpp def ko ab na la wóor ni àdduna du ab xarit te àdduna bu doon àdduna du ab xarit te àdduna amul rusukaay àdduna bii ñu nekk amul rusukaay koo xam ne àdduna ak yow itam bis dana ñëw àdduna rus loo la àdduna bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dana la war kon nag bala la àdduna war na nga ko war te àdduna lu mu yàgg yàgg dana dem bàyyi la te buy buy dem sax